waaye gars yi ndax Tapha Tine war naa ba am lu muy moytu ci Balla Gaye numéro 2 bat boobu maa ngi koy biral rek bugguma loolu Alaaji Moustapha Kandji maa ngi lay nuyu da nga wàññi télé boobu mais Alaaji Sàppali maa ngi laa nuyu maa ngi baax a baax a la laaj sa jàmm sa jàmm yaram ah xam naa ne diggante bi ñeegi léegi noppalu xaju fi yaay ngi ci terrain bi mais ñu ngi lay jaar bu baax di rafetlu aussi nag euh, liggéey bi parce que euh, wana nga ne ginnaaw yàlla ak yonent bi tey ak say wayjur nu ci bari boo ne melee làmb la mais delloo waar nga làmb lim la jox parce que c'était pas évident tamit dimanche ñu gis la parce que lu mu tuuti tuuti tuuti rek léegi dem nga ba toll foo xam ne ci làmb bu dee juróomi nit la sax am na ñoo xam ne chaque jour dañuy bëgg nga ne dama ñu déglu kon ñu ngi lay ziare bu baax a baax a baax di ziare aussi ñi nga xamante ni ñooy say followers di seetaan gis naa Seck Abdoulaye ci Canada moom tamit le Pikinois noble borom xel mu sell maa ngi koy ziare baax di ziare ñëpp ñu nekk ci commentaire di leen baalu àq bu baax neex na fan yii Pikine neex na neex na neex na. ma macha allah macha allah yàlla yàlla suñu borom laf cat eh. allah. <laughs> ah waay lii de ah waay Pikine waay Pikine neex na fan yii neex na neex na. ala ala la ca daal. di fe waaw ala gi Tapha Kandji yi. premier. jàkkaarloo Siteu ak Modou Lo le roi des arènes ci weekend bii la. Siteu nag communiqué woon na. waaye Modou Lo. day mbër mu lëndëm mhm. lan ngay xaar ci jàkkaarloowu Siteu ak Modou Lo ma doog a ci Balla gi numéro 2 ak Tapha bala balaa may sara fofu dang may may ma féliciter Ama Balde do fa la Balde na ko na loolu ba génn ci bis bu am solo and ci ak wa Pikine yëpp suñu borom sutural leen parce que yalla suñu borom rek mo meun mhm. diko féliciter di féliciter l'ensemble des Pikinois ñepp ay ñi doonul Tikinois sax ta and ak moom. di encourager le Bordelais de Villeneuve-Saint-Georges. Gri ah. Bordeaux. parce que param c'est un très grand champion bo xamanteni man il a tout mon respect. gri ko respecté wu respecté wu lamb ndax wax deug naa la am vécu ci lamb di féliciter monde di Ada Fass di féliciter lise ñafa dan encourager guigui aussi guigui un grand champion. boo xamante ni ñu ngi koy encouragé bu baax a baax a baax Fadam. di wax ne suñu borom nag Fadam lu la may ca xarit ba la jël. dëgg la dëgg la dëgg la. guy gi ma xaw a taxaw ci moom tuuti rek mbër la moo xamante ni lu mu am ci làmb. tafakañ te sa réseau bi neexul de sa réseau neexul de tafakañ yi. maanaam mbër la moo xamante ni guy gi. waaw. lu mu am ci làmb entraînement moo ko may. léegi ah, dégg na la léegi nag ci nit day am loo xamante ni li ñuy wax sëb lay doon la ko na man ca biir. dëgg la dëgg dañ koy ñaanal rek su fekkente ne suñu borom dafa def mu tawat yàlla ko suñu borom may wér ba mu dellu siwaat ak sagoom parce que làmb soxla na ko te am na cër ci làmb. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Fadam danga maa laaj ci Siteu ak Modou Lo. le roi des arènes. waaw tàmbala sa bi jaa defoon benn communication ci bu mu nekkee États-Unis am baa yu mu saraxal Modou mm-hmm. waaye nag Fadam ku xam Siteu xam na ba mu commencé bëre ba tey Siteu musul ñëw ci fees su fees Fadam di am lu muy xalaat xel ñaar mm-hmm. Mm-hmm. mais xam nga defois fois signature ak làmb c'est diamétralement opposé Mhm. mais Fadam maa ngi lay bëgg a wax lii lay wax nga jàpp ko ci Modou Lo. Mhm. mbër mu ko bëgg daan Fadam doo ko jox cër trop. <laughs> Eh, sama xel dem na ci Diram Pape Balla Gaye numéro 2. lamb laa lay wax de. lan moo tax nga ne Modou mbër mu ko bëgg daan ci lamb doo jox cër. waaw benn dafa mën a bëre. na dafa mën a xeex benn ba pare il est très calme ba pare du jaxasoo ci biir làmb mm-hmm. te defet yi mu jot a am mu néew ci làmb ak bëri gis nañ ne mbër yi ko teg yëpp dañ teg lu mu antanul teg ko lu mu antanul nag moo jafe mm-hmm. moo jafe teg Modou Lo lu mu jafe na waaye saa boo ko réussir man nga am ci moom dam mais Tapha Kandji mbër mu bëgg a teg Modou Lo lu mu attanu ci làmb mbër moomu nan la war a mel ak mbër moomu lan lay indi ndax da ne dama gis nga wax benn baat bu am solo mooy Modou Lo ku ko bëgg a ci làmb doo ko jox cër mooy Modou bëggee teg lu mu attanu ci làmb lan nga indaale laaj Tapha Kandji li ngay njëkk a indaale mooy da indi doole ju wér peng doole ju wér peng fanam ju sen ngay indi ñaareelu boy ñoo fanam ñu indi sen sen bu bari préparé ko nak fanam day laaj stratégie bo xamanteni sa bo boo bu arbitre sifflé bo déparé amul taxaw mais dama ka di yow ya ngi dégg normal ya ngi normal xaram day dégg 5 sur 5 man ko ñewal ci man la kon ma ngi lay dégg de waaw yow iya. nag sa image mi ngi xaw a dagg tuuti mais man naa bu baax a baax. mais man mais man lan ngay xaar ci Siteu jàkkaarloo premier jàkkaarloo Siteu ak Modou Lo lan nga ciy xaar ci Siteu. lan lan ngay. Siteu liñ ciy xaar mu teg ko sa loxo yow kañ. mais li ñuy xaar ci mooy lim daan indi rek indi jàkkaarloo boo xamante ni day neex wax ak wax ak Fadam wax ak maanaam bañ koo bàyyi mu nekk ci zone de confort loolu c'est très important mooy wax ak moom ci biir signature bi gësam ko gësam ko ci wax ci biir signature bi mhm. Mhm. nag après cay des nag mooy ci diggante bala ngaa dugg ci technique tactique bi mooy il faut nga bàyyi nag ba gis sita gars yi nag nee nañ maa am problème connexion waaw yow da nga am problème ko léegi xaar ma génn la dugalaat la xaar ma génn la dugalaat la waaw dafa dafa alaaji Tapha Kandji foofu nga nekkoon ci diggante Modou Lo Siteu am solo. wa loolu la la wax rek manam manam cité day ñëwé no xamanteni non lañ ko xamé wa rek parce que cité mom ku ne xamna na ne bu ñëwé ci signature wax deug yalla daf koy neexal. daf koy neexal légui nak signature ba ak lay am ci lamb jo bokul mais bala ñoo mëna wax wala ñu am benn aperçu Fadam ci combat bi ni ñu xalaat ne non la wara mëna démé moy il faut Fadam ñu gis ci parce que dégg na la nga wax ko sank moy cité fi ni ba ni muy ñëwee Sénégal lépp kumpa lay doon ci ñun. Mm, mm, mm, waaye nag Fadam Fadam njortu naa. te jot naa ci ay information Fadam cité bo gisé gisee Fadam Siteu dégg na liggéey na dé bu baax. da nga dégg ni ñu ne liggéey na état de forme bu jaar yo waaw waaw. hum. waaw. dégg naa dégg naa nga ne na état bu jaar yoon. dégg ci état ba pare yokku na maas fanam. mais ndax xam na ndax mu ngi bàyyi xel ne Modou Lo gis nga am na ku koy am na ku koy commenté nii Lamine Diouf mii États-Unis la te gisoon naa ko mooy muy ànd ak bës na la jël na maas bu bari. kon Siteu kon. kon hmm. Siteu poids lourd la ci combat bi poids lourd la. gaa hmm. gaa yi loolu lañ wax de. làmb ju neex ak ñuy xaar. mais wala masse ndax loolu tamit waaw foofu tamit war nañu fa taxaw. maanaam boo jëlee masse États-Unis bu ñëwee fii ba tampono gone il bii xam nga ne bu contact deux mois boo ko gisee la nga am. maas muscle bu wow koŋ nga am ah yàlla baax na yàlla baax na mbot moom moo la mën a wax te biir ban ba ndax moo nuuru waaw waaw ka muy bëreel nag moom kenn du wax ci moom Modou Lo moom kenn wax ci moom mm. moom bàyyi rek da bàyyi rek moom di xool Modou Lo amatul dara loo mën a wax ci moom mais combat boobu loo ciy xaar lan ngay xaar ci diggante Modou loo ci te loo xaar non non dañuy xeex de dinañ xeex de Fadam. jëflante. non mënut a ñàkk. Siteu bu bëggee daan Modou Lo faaw mu xeex ak moom Fadam Modou Lo kenn mënu koo daan te xeexoo ak moom. waaw ndeysaan. Siteu ci réew mi. waaye ñu xam ne borom dëkk bi ñëw na. waxoon na ma bu ma ci réew mi. ba dem jon war ñëwaat ñu xam ne borom séeréer bi ñëw na. walaay séeréer leen rek. day indi cosaan Tapha Kandji li ma ci jaaxal mooy Modou Lo c'est la Modou non Modou Lo dafa am bëyër fanam benn jàngoro jaaxalatu ko. Hmm? non mudlu Lo mudlu Modou Lo faram Modou Lo nga gis balaa nga bala koo nig bala koo nige dig dara nga gëm ko baal bam def ko ko ba pare. ah kon baax na yow daal yaa ngi xaar signature bu doy waar vendredi yaa ngi xaar. doy waar vendredi non non si signature. affaire yi mënul si Siteu si Siteu du bàyyi Modou Lo nekk à l'aise sax. kon baax na mais tabakaan yi ñu jëm bi nga xam ne moo jar ngeen